jaa ngeen jëfati mbokk yi wéy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu fii ci chaîne chaîne YouTube bi di Bio Rahma mbokk yi nataal wi ngeen di seen moo ngi tudd Mamadou jaañ Diagne mu nekk fële ca Togo ca Lomé yàlla dogal foofee mu am fa jafe-jafe feebar lu jëm ci wàllum xel mbokk yi nekk foofa ca Togo nag defab yéene jëm ci fësal ko ngir mbokk yi nekk fii suñ ko xàmmee ñu yëglu su boobaa ñoom ci seen bopp ñu jéem a seet yan yoon la ñuy jaar ngir daal ko delloo fii ci réew mi ngir ay mbokkam taxawu ko ngir suñu borom daal di saafara mbir mi. moo waral ñoom ci seen bopp jox nañu benn numéro téléphone boo xam ni ku xàmmee jëmm ji nga daal di ko woo ci numéro bi ci sos double zéro deux cent vingt huit waaye ci carte consulaire bii ñu wane def nañ ci quartier lu mel ni Dalifort waaye du ñàkk mbokk yi dégloo ko seetaan ku ko xàmmee ku ne rek mën naa woote ci numéro bi su ko defee suñu borom daal di dimbali ñooñee mu daal di dellu si mbir mi daal di saafara jaa ngeen